bay si Sénégal ña koy bay képp ku ñëw jóge bitim réew war nekk baykat war na sénégalais war na bokk si sa fonds bi ngay dugal ak sa entreprise mu am si ay part jot na mbay mi fépp képp ku ci dugal loxoom loxo sénégalais nekk ci peggam. entreprise yi nga xamante ni ñoom dañuy yëngu si wàllu phosphate te ñu xam ni phosphate moom la ñuy utiliser pour engrais yooyule les entreprise ñu delloo ko Sénégal ñu nationalisé ko table xoolaat politique céréalière bu senegal mbayum ceeb naam baax na mais mbayum ceeb warul warul rey mbayum dugub mbayum ceeb warul rey mbayum mboq wante buñ fa yem wàllu mbay jën nekk ci yoon rek njumte la ndax fan koy baye lu ci ëpp dafay am taataa nañu fexe dex gi nga xamante ni mën nañ fi jaaralay bato ñu def ay port jël ay bato yi nga xamante ni leen tax a jóg mooy la ñuy bay ba ñu ginnaaw bi ñu defee ay réseaux yu ñu ñu génne ko réseaux yi teg ci bateau yi comme ni ñu koy tegee ci camion yi